voilà donc euh, kooku moo nekkoon ni dof dinañ jéem a dellu set moom incha allah andi leen li nga xamante ne moom mooy information par rapport ak euh, li dund ci Europe bi waaye ni ma ko waxee ni ma koy faral di waxee euh, boo nekkee star sa dëkk xëy suba yàlla may la ndam nga ba ko fi dem bitim réew ñu bëri da naan dafa daw départ volontaire lañ koy wax waaye li koy firndeel dawuñu dañu bari parce que def nañu benn festival man ci sa li ma xel sama xel li mu jàpp def naa festival boo xamante ne at waa euh, benn structure américaine lañ ko defee woon euh, fële ci Douta Seck ñoom ñoo jëloon euh, li nga xamante ne moo nekkoon groupe bi bi gënoon marqué nit ña fa nekkoon donc muy waa gox bi système ñu jugee Sénégal nag dem États-Unis buñ demee États-Unis tooguñu foofu di def n'importe quoi wala nekk ci wala dugglu seen yoon newul donc li ñuy def mooy dañuy saafonteeg ñoom su fekkee ñu ngi ñuy dégg su fekkee ils sont ligne donc ñu nuy leen di di nuyu surtout aussi du passage waa Pikine andi na leen seen doom waa Géejawaay aussi waa Xinaan yéen ñëpp ah, def naa ne war ngeen ah, kontaan ci li nga xamante ne ah, ñoom ñoom ñoom loolu leen nekkee bitim réew donc salaamaaleykum waa gox bi système na ngeen def ndax yéen a may dégg. ay for real maaleykum salaam. mais gars yi bëgg nañ trop gars yi bëgg nañ trop di leen euh, surtout euh, lii nga xamante ne euh, moom la ñuy andil tey téléspectateurs yi parce que ñoom ñu ngi doon xaar ñu andil leen li leen li leen liñ démarré woon maanaam One seen bi loolu ñu ngi ci ba léegi juguñ ci waaye tey dañu ne balaa ñoo defaat beneen numéro il faut ñu boole ci waa bitim réew parce que yéen ci ngeen bokk donc waa Pikine ñu ngi leen di déglu ñu bàyyi leen ngeen nuyu ñoom. waaw salaamaaleykum man la Pape gox bi ah, ñu ngi ziar gaay ah, comme ni ko expliqué donc euh, comme euh, depuis xam naa ne at yu weesu yëpp li ci ëpp ñu ngi woon fii hmm. donc euh, xam naa ñu ngi ziar ñëpp xam naa incha allah ci biir émission bi mën a expliqué wàlle bagage yëpp incha allah donc je vous laisse avec Mr Pathé. Hmm. salaamaaleykum. waaleykum asalaam waaleykum asalaam to the M to the A to the D O U. Pathé na ngeen def Sénégal nam nañ leen. <laughs> mais ñoo raw ñoo leen raw. yaa ma bàyyi la Diaz. Diaz bismillah. Sénégal na ngeen def Pikine ginnaaw raay. gox bi ci forever ay Pathé wu leen de. <laughs> ndeysaan lii dafa neex euh, ndeysaan euh, euh, saafonte bi et puis nostalgique ah, dañuy gis ne namm ngeen Sénégal waa gars yi fi mu toll nii lan ngeen gën a namm Sénégal balaa ñoo dugg ci waxtaan bi. ceebu jën. yaa benn mbay <laughs> surtout ah. Euh, donc gars yi ceebu jën bi defe naa ne bu ñibbisee ah donc maire yi paa yi tonton yi defe naa ne dégg ngeen message boobu gars yi ceebu jën leen nam donc bu ñëwtee Sénégal ba keroog ñuy dellu nang leen di ceebu jën Penda Mbaye mais <laughs> mais gars yi euh, ni ñu ko waxee woon donc ci euh, ndorteel bi ah, bi ngeen jugee Sénégal ngeen bàyyi fii liggéey bu rafet dem États-Unis ne aussi ci liggéey bu rafet euh, tey mën ngeen ñu wax euh, ci yan condition ngeen nekk ci États-Unis est-ce que euh, yéen a ngi def ay concert est-ce que am ngeen maison de production wala yeneen ay produit seen bopp ba léegi. waaw comme comme ni ko gars yi gisee xam naa peut-être euh, bu fekkee ne gars yi dama leen koy wax chaque jour xam naa ku bëgg xam exactement des fois li gox bi ci li mu nekk. Mm-hmm. il est préférable nga dem nga google gox bi di nga mën a xam exactement fan la gox bi di nekk lan la prépare di def ak lépp li nga xamante ne ñu ko war a def boo demee suñu website wala fépp wala suñu Facebook di nga ko mën a gis quoi. Mm-hmm. Euh, li ma a jox pour en résumé mooy que gox bi ça fait dafa defoon nekk. depuis quatre vingt dix neuf presque boo xoolee fii la ñu basé wu. Mm-hmm. te loolu li ko waral tamit c' est parce que suñu carrière professionnelle yëpp xam nga fii la commencé. waaw parce que euh, bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw balaa ñuy suñu premier album mu Sénégal mu ngi génn en mille en deux mille deux. waaw 2002 donc euh, mais suñu premier album international mu ngi génn en 1999. Mm. donc loolu mooy wane ne que suñu carrière mu ngi woon commencé fii. et puis biñ demee ba ci kanam yàlla dafa defoon ne dañu am ay yeneen yi mbir yi nga xamante dafa feeñaat ci biir mm-hmm. moom mu nekk wàllu family mm-hmm. après dañu dem ba nga xamante ne am na ñu fi am ci soxna am ci family am fi doom mm-hmm. donc ak business bi dafa dañu dem ba nga xamante ne nekkoon basé woon fii moom moo ñu gënoon arrangé donc loolu moo waral loolu suñu nekkaay fii so mais nekkul c'est parce que Sénégal dafa metti wala dafa naqari Sénégal ginnaaw lépp ñu am moo ko gënal su ma sañoon fi may wax ak yow nii maa ngi pikin ginnaaw laay toog mais comme réalité des fois euh, réalité moo lay pousse donc nga nga génn dëkk ba dem def yeneen affaire quoi. en parlant de réalité Diaz est-ce que mën ngeen ñu wax fi mu toll nii euh, ndax am ngeen ndax yéen ngi am wala yéen a ngi dox euh, maison de production wala yéen a ngi def ay tournée foofu euh, ci li nga xamante ne moom mooy États-Unis wala ci yeneen dëkk yi fi mu toll nii ndax seen ay seen seen ay kopparu bopp ngeen demee wala da leen di financé. waaw loolu moom ma ko gën a mën a sax parce que xaw ma manager waaw loolu euh, loolu pour ma dégg dëkk ci loolu. waaw xam nga musique dafa am réalité léegi mooy li may expliquer léegi. Hmm. Euh, léegi musique bi léegi production moom moo xew fépp ci àdduna bi maanaam léegi maison de disque boo xoolee léegi de plus en plus ñuy def plus en plus muy gën a hmm. parce que léegi dañoo toll ci jamono joo xamante ne production moom moo nekk li doxal léegi world music hmm. bu fekk comme musique bu mel ni pop music comme ay 50 Cent wala benn Beyoncé wala benn Jay-Z. Mhm. loolu moom ñooñu maison de disque mun na ñooñu mun nañ job ak ay maison de disque parce que ñoom dañu am poids boo xamante ne. Mhm. mun na nañu représenter lu bari bari bari. Mhm. mais boo xoolee wall wóoru musique. léegi boo xoolee sax euh, maison de disque sax léegi maanaam léegi presque amatu fi léegi li li am moom mooy autoproduction dangay da ngay ñëw def sa sa produit. nga jël sa produit. ak ut benn maison de distribution mu defal sa distribution. après ngi jël sa moyen pour def sa euh, sa promotion. donc mbir yi léegi boo xoolee noonu lay doxalee. Mm-hmm. gox bi euh, ça fait maintenant depuis 2004. Mm-hmm. ñu ngi job ak euh, ak maison de production bu tuddu Ancient Microbial Music man sax ci laa bokk noonu ci ci mm-hmm. production maison de production bi laa bokk. donc li ñuy def moom mooy que mais kii de près nekkul maison de disque mais maison de production la. dañuy def album ñoom ñooy tournée ñoom ñoo koy def euh, album bi ñoo koy def bu ñu defee album ba pare ñu dem ut benn maison de distribution maison de distribution moom mooy chargé wu après pour def promotion euh, euh, groupe bi. Mm-hmm. donc pour wax na nag léegi léegi monde musique bi dafa changé. Mm-hmm. léegi te yàlla dafa def. Euh, musique boobu boo dee euh, Afrique wala nga jëlee ko Europe wala nga jëlee foo ko mënti jëlee. Mm. soo ko bu ñëwee Amérique fii ci world music lay nekk. maanaam tey boo jëloon benn group Sénégal. Mm. muy rap muy euh, muy mbala boo ko indee fii rek world music lay doon lay nekk daal. te daal ji boo ko indee ci circuit world music la wala lay jaar ngeen indi benn P France wala possible ci circuit boobu lay jaar. te circuit boobu léegi amatul ay maison de disque amatul léegi da ngay def autoproduire. autoproduction. so boo defee loolu en même nga wut benn maison de euh, distribution bu defee distribution en même temps nga def sa promotion. en ce qui concerne concert yi nag. Hmm. comme ni ñu ko expliqué gox bi dafa nekk groupe boo xamante ne mooy li nga des fois nit ki dañuy ñëw la wax quoi doon woote rajo yi di wax ci lan def ngeen lii wala def ngeen laa. waaw ñun je crois Exciders yoo xam nga ñu baax depuis le depuis le début. gox bi nekkul groupe boo xamante ne day day dem jeudi day dem jeudi Californie Hollywood. Hmm. ñëpp ñu woote te rajo ne ah, def naa Hollywood te nekk ah, loolu man bëgg naa soo ma déggee rek mooy gagné naa Grammy Awards gox bi tey boo ma déggee tey un jour ma gagné Grammy Awards dinaa yee ne ne Exodus ah ah bagage am na lu génn mm-hmm. naa Grammy Awards wala ah, gagné naa nu mu tuddati gold disc disque d'or <laughs> so loolu loolu mooy wane loolu moo mën a tax nit mais am na ay ay ay trophée yu bëri yoo xam ne jël nañ ko te boo xoolee tey sama suñu gàll bi xaw ma ne yaa ngi koy gis. waaw léegi yëpp ay. gaa mën nga wàcce waale quelque kii ñu ñu waale ko. so ay yoo xam war nañu xam ci li nga nekk c'est important. ñu gis ci li ngeen di tuddee xool ba xam comme ni ñuy wax weddi gis bokk ci. <laughs> waa xam nga des fois day diis pour ñun pour ñu def yenn affaire yi. dëgg la wax sa bopp xam nga day diis quoi. Hmm. mais comme par exemple yi nii yoo xamante ay gouverneur ñoo la ko jox yaa ngi dégg. ok. lii ay ay bagage la yoo xamante ne bokk na ci bagage yi. Mhm. yaa ngi dégg mhm. loo xamante ne ay gouverneur Rhode Island moo ñu ko jox. ak ah, foo xoolee ci mur bi fële. je ne sais pas xaw ma ne di nga ko mën a gis ah, ñu ñu. mais gouverneur bi daf leen ko jox ono nom de quoi c'est-à-dire que. def ba tax gouverneur bi jox leen euh, raaya boobu. maanaam maanaam activité yi nga xamante ne gox bi parce que gox bi boo xoolee at yi mujjee yëpp. maanaam dafa dañ fi dafay activités yu bëri yu bëri daal. donc gouvernement bi def ñu ko jox. parce que dafa xool ci suñu wàllu volet humanitaire bi. ak volet musique bi ak yëngatu yi nga xamante def na ko yëpp ki ci Amérique fii moom ñoom ñu koy dégg daal. donc moo tax def nga xool euh, fii nii je ne sais pas est-ce que yaa ngi koy gis waaw fii festival mu ngi tudd ba Shoot fii festival bi gën a mag ci ci àdduna bi moo nekk nii te boo xoolee xaama gën ko gën a jege soo xoolee. bii mu ngi am Seattle. Seattle lay am quoi. boo xoolee tête d'affiche yi mu ngi nekk ay Kanye West ay Tribe Called Quest ay gox bi system. mu ngi bu baax yéeg ñu gis ko bu baax. ok xaaral ma xool ndax. waaw mën nañ ko gox bi di ko mën a gis quoi. c'est pas grave waaw. voilà ñu ngi gis gis. waaw gox. waaw xam na xaw a jafe mais gox bi di nga ko mën a gis mu jege daal. non leer na. ok donc euh, c'est important yi ñu doon gis léegi mais est-ce que tey mën ngeen ñu wax ci seen album fan ngeen ci toll. soo koy génnee euh, ci yan condition ñu koy génne ak yenn style musique lañ ci nara fekk incha allah. waaw xam naa peut mu bàyyi sama gars yi. ayca Bakka wala kum ci. Pate <laughs> waaw la <laughs> comme ni ko Pape am solo la donc quant album bi nag. bon comme liñ pare woon moo nekkoon dañu ñëw rek euh, fexe am lu génn foofu noonu. Mm-hmm. mais comme que ñun balaa ñoo def dara dañ koy càmbaraat ba pare. waaw xool exactement yan recette moo ci war a mën a génn. Mm-hmm. ak euh, nan lay fan lay aboutir quoi. donc euh, biñ càmbaraatee loolu donc on a décidé ñu xaaraat un peu parce que aussi bëgguñu def album boo xam ne du am suivi. bien ñu def album boo xam ne day dee comme yeneen album yu ñu génn parce que am na album bu ñu dañ ko génne mais amuñ ci dara. donc euh, comme ni nga ko xamee fii fii studio boo fi duggee ah, am na studio yoo xam ne dañu fay enregistré ay cinquante mille francs ngay fay par heure. donc boo xoolee album boo ko joobee album ba album bi jeex xam nga te retrouve avec ay millions yu bëri yoo xam ne da nga ko dépensé. donc bu fekkee da nga dépensé mani bu toll noonu ba pare. Mhm. donc boo koy génnee dafa war a am ay recettes yu ci war a am. parce que comme réalité la ñuy wax. dañu am fami donc dafa am euh, ay nit ñoo xam ne ñoo topp si suñ ginnaaw. na ñoo xam ne ñun lañ yaakaar. donc lépp loo xam ne dañ koy def dafa war a am lu muy génne dafa war a am rendement donc euh, Sénégal kenn gënuñu ko bëgg fu ñu dem ci àdduna bi moom la ñuy teewal dañ koy faral di wax ne ni ba ni Bob Marley def ak Kingston ñun moom lañ bëgg def ak ginnaaw raay moom lañ bëgg a def ak Pikine. Hmm. ni Bob Marley def ak Tristan moom lañ bëgg a def ginnaaw raay donc fépp fu ñu dem ci àdduna bi moom la ñuy teewal mais aussi dafa am ay réalités yoo xam ne mooy tax ñuy moo tax ñuy dund moo tax euh, gars yi dañu dégg ba léegi ñoo tax gars yi dañu gis te bu fekkee loolu bëgg nañ mu dund il faut population yi population bi di jàpp affaire yi di jënd album yi comprendre di càmbaraat group bi di xool fan lañ toll parce que group bon euh, artiste bi euh, fans yi ñoo koy jàppale population ñoo koy jàppale pour artiste boobu noonu. mais est-ce que est-ce que seen album bi euh, incha allah di ngeen ci def ay featuring ak ay artistes américains wala artistes sénégalais. ah bien sûr euh, yeah ah, d'ailleurs am na ay am na ay euh, ay kii ay artistes américains yi ci jotat ki am na Nads benn xam naa bu ko gars yi mën xool ci ci net bi nañ ko gis Nads. waaw Nads uh, moom originally from Jamaica la. am na Dead Praise je pense que gars yi bëri xam nañ Dead Praise. Uh, incha allah album bi dina am biddiw bu bees uh, am na ay bagages yuñ teg récemment ak ñoom et que affaire am solo la incha allah ñu ngi xool ndax nomi dina ci mën a bokk wala gars yu mel noonu. donc ñi ngi def maximum connection bi nga xam ne ñi ngi koy def ak gars yi nga xam ne vraiment ñoo ngi yëgante. Euh, mm-hmm. te incha allah bu génnee gars yi ci gis euh, dara quoi. incha allah est-ce que di ngeen ko génne Sénégal boo leen bëggee ñëw Sénégal kan ngeen nar a ñëw parce que gars yi namoon na leen quand même ah def naa balaa ñuy tëj émission bi euh, laaj ni ci ngeen saafonteeg askan wi wax leen kan ngeen di ñëw et quels sont vos projets yan projet fi mu toll nii ngeen engagé aux États-Unis et au Sénégal incha allah dans le futur. waaw xam naa incha tout dépend ci comme ni ko expliqué li ko parti waxee tout dépend ci réalité xam nga dafa am ñaar ñaari mbir yi nga xamante dafa xew ci sunu ci ñun mm-hmm. maanaam moom la ñuy demee maanaam benn bi moo nekk dream mooy rêve bi nga xamante moom la ñu am beneen bi moo nekk réalité léegi chaque jour dañuy fexe que ñaar yooyu euh, muy allié wu xool lan lañ lan lañ koy mun a coordonné daal donc euh, léegi maanaam suñu ñëw Sénégal mu ngi dépendre ci album bu pare mu ngi dépendre ci réalité yi nga xamante ne ah, dafa nekk foofu en place te du du la ko nëbb am na xam nga ñu ngi woon Sénégal euh, l'année dernière mais comme par exemple bi ñu ñëwee foofu am na yu bëri yi nga xamante ne sax waroon nañ ko teg foofu mooy mujj ñu ko teg comme ni ma ko expliqué. Mm. c'est parce que am na yu bëri yi nga xamante ne dañ ko jëloon jox ko ci ay loxo mais mujjul maanaam liggéey bi nga xamante ne laajoon na ko ñooñu mujj ñu ko def comprendre nga. donc dañuy bëgg nañ fexe bu ñu bu ñëwaat foofu après euh, mu nekk. Euh, mu nekk loo xamante ne ci ci ay ba ci ay base yu leer lay nekk yoo xamante ne ay base yu professionnel lay nekk daal mais comme ni nga ko expliqué gox bi euh, moo comme ñu ngi ñu ngi continuer suñu bout de chemin ngi fexe euh, euh, comme tournée yi ñu doon def ñu koy def donc comme ni ko waxee def nañ lu mot ay. mais gars yi am am na ay xale yu jigéen yi leen di woo de Skype bi ñu ngi dégg affaire yi ngi sonné <laughs> <laughs> <laughs> ah affaire yaa ngi sonni bi sànq de sama gars ngi zappé di nag ci pet. Ah, daal gars yi ñi fi bàyyi soxna moom parce que am na ku fi takk daaw ki mi ñëwoon koo xam ne balaa ma doon dem jot na fi takk bàyyi ah. <laughs> wala wala ñu dalal xelam. <laughs> <laughs> jaajëf. mais Diaz Diaz yow soxla naa la parce que Diaz fi mu toll nii euh, balaa ñu émission bi bëgg naa nga wax ak sénégalais aussi wax ñu booy yi nga xamante ne ñu nekk ci underground bi nekk ci pikin bi lan lañ war a gën a liggéey lan lañ war a gën a mën a yokk seen style afin que bu ñu demee ci international bi ñu mën a am chance am tourneur wala am chance am maison am maison de production wala sax am fenn foo xam ne leen fa mën a jouer yan leen war a gën a liggéey euh, d'après votre expérience non affaire yi mooy comme ni ma koy waxee rek te man d'ailleurs d'ailleurs man comme que xam nga man Sénégal bi mu fa jege matagul sax un mois. waaw presque maa ngi foon def naa fa lu mot ay quatre mois yooyu noonu seulement que dama def loon pour gars yi xam ni Diaz mi ngi Sénégal quoi. dama demoon rek toog mais yàlla dogal na ñi ma ci am chance tasel jote gisanteeg ñoom ne buñ toogee li ma leen di gëmloo mooy affaire bi il faut nga def li nga xamante ne bii ni yow yaa ko moom. xam nga nekkul ne da ngay toog fee rek naan man at koor laa lii laay def wala lee laay def mais. parce que fii ñoom bu ñu déggee ni yow groupe bi Afrique la jóge rek ñoom du ñu xool sa message quoi mais dañu xool yow sa couleur musicale lan la. ok lan nga andi maanaam xool ko. lan nga andi ci maanaam euh, lan nga jëlee Afrique quoi pas yow loolu yow li nga fa fekk. waaw mi ngi noonu léegi après ñoom bu ñu xoolee gis sa couleur musique nice après amul benn bul sonn da ngay dem. mais bu ñu xoolee gis ngay def comme ni ko américain bi di defee après doo dem man lool ku képp ku ma toogal rek loolu laa la defal loo xamante ni bii nii Afrique la. parce que léegi dafa dem ba léegi américain sax dañuy ñëw Afrique di jël instrument africain yi di ko dugal ci seen biir musique boo xoolee ay Kanye West ay Lil Wayne ñoom loolu la ñuy def nii instant bi nii nii nii kon pourquoi pas ñun ñi nga xamante ne bi ñun ñoo fa dëkk ñun ñoo judd ci loolu noonu màgg ci moom ko pourquoi pas ñu jël ko insérer ko suñu biir musique balaa keneen di ko jël incha allah defe naa ne am na solo trop message bi gars yi dégg nañ ko donc gars yi euh, li ñu joxoon ci euh, waxtu euh, jot na fi mu toll nii da leen ñu bàyyi ngeen lancer le dernier message aux téléspectateurs balaa may annoncer seen clip bi gars yi ñu bàyyi leen ngeen tàggu yi waaw man moom xam naa dernier message ma nekk que que que gars yi nañ nañ nañ suñu musique bi euh, blocage bi nga xamante ne dal na mbalax bi mu bañ a suñu suñu suñu rap bi. ba nga xamante ñu fexe ba nga xamante ne suñu musique bi euh, rap bi bi nga xamante ne moom def Sénégal mun a saaw ci àdduna bi. bi nga xamante ñu dem ba nga xamante ne mun am ay vingt groupes yoo xamante ne ñëpp dinañ kii bu demee Japon kii dem Australie kii dem euh, hmm. États-Unis donc te pour loolu am il faut que musique bi ñu defaraat ko ba nga xamante ne day nekk day bokk ci day adapté kaw normes internationaux yi donc pour loolu am nag il faut que ñu xoolaat suñu musique ñu liggéeyaat ko te je crois am nañ talent les talents qu'il faut pour def loolu donc su fekkee ne bu ñu defee loolu donc je crois euh, mun nañ dem fu sori sori te parce que Sénégal xam ne na talent moom am nañ ko mais bu ñu xoolaatee mbir yi tuuti rek après mun nañ dem fu sori sori quoi ok voilà merci donc gars yi suñu euh, groupe yi mooy ñi leen andiloon dañ demoon euh, bitim réew